yi mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di am mbégte ak kontante di jàkkaarloo ak yéen ci li nga xamante ne ni moom moo ñu yàgg a bu ngeen xoolee jotaay bi ngeen xool mbooloo mi ni ñu toogee mbokk yi ngeen xam ni bis bu mag am na ngeen xam ni làmb woote waat na li nga xamante ne ni saa bu wootee Sénégal ñëpp kontaan saa bu wootee Sénégal ñëpp bàyyi seen ay yitte ñëw teew ci loolu mooy tàggat yaram bi nga xamante ne moom ñun ñoo ko moom fii ci suñu réew ñu ngi leen di siyaare waat bu baax a baax di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ci salle bi di ko tàmbalee suñu papa yi fi nekk suñu papa Ousmane Diouf ñu ngi koy béggee bu baax a baax di nuyu suñu papa bi nga xamante moo fi teewal CNG suma naataangoo yi fi nekk di ay journaliste maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di jël nuyoo bi teg ko ci loxo la grand Dembélé ñu koy siyaare bu baax a baax Babacar Lamine sama yeneen gars yi cameraman yi naa leen Baye Talla waa Ndiaye Prod maa ngi leen di nuyu bu baax a baax soq de rak soq ah waaw waa ca nuyool ñaari waajur baax a baax sant képp teew salle bi di sant yamb yëpp sant yamb yi ne si paak bi yëpp maa ngi sant di leen gërëm combat bi seen combat la waaw aja ansubila na seytaan rajim ansubila maa ngi nuyu ñu fi teew yëpp xama ku nekk ak sa tur ak sa sant quoi xama waaw di gërëm yàlla rek di gërëm yàlla bu baax a baax a baax man la tiijaan doomu Ngunjaan waa Ngunjaan nag ñoo ma yëbal quoi te man yabuma leen kii kii lu ma koy wax bariwul de. loo koy wax. barki yàlla kii ma koy wax bariwul. dafa juum lu mu tuddee boppam ko sooq sooq lu ko sooq dafa yomb. ba da ngaa réere mbir de sooq laa lay wax sooq. bëri après ngay comprendre yow dañ maa yónni yaa xam te ma. Hmm? waa jeune amateur. xale. jeune amateur di ay xale. yaa xam waa Kër Mbaye Fall yónni ma ma doon doomu ñoojoor waa ñoojoor yab ma. te jëmm ji du ma téye ba ak sëñ gaawaan. saa njool la de. du <laughs> dara ay njool laa dëkkal benn ngi nii. maa lay ziar. ñu ngi delloo ziar Modou Mbaye bu wér a wér. ñu ngi lay bëggee ñu bàyyi ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi ziar mboolem doomu aadama bu fi teew. di siyaar kuluhum di ko siyaar moom mi Ibo. Mhm. ko siyaar di ko jox wàccu waaye. waa kër Mbaye Fall dañ ko yónni nee na yaa xam di ko. Ndeysaan la ca boppam rek la wax xëy na waa Medina man dañ ma fàtte. déggoo ma de bu bëree ma jàngal ko nu ñuy bëree bu xeexee ma duma ko ba mu jafandu si arbitre bi yaa ngi may dégg bu baax man du ma nekk di wax ak yow sax nga may yab. waa Modou Mbaye gannaaw ma sant yàlla di julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur di sant waa Kër may Fall ku luxum di sant sama gannaaw yu ma àndal ku jëmel nii ñoom saamaan xam nga ñoom dem x ñoom Balla San ñoom Sita Aliou Mané Bazo di nuyu sama doomu nday Bébé Jackson di ko ñaanal xam nga yàlla na ko yàlla may yow da nga koy soog a dégg tey Modou Mbaye damay woo samay grand frère ñoom Souley ñoom baaba yaa ngi dégg wax ji ñoom Palamine ñoom Doudou yaa ngi dégg wax ji yaa ngi dégg di nuyu Bokar Bokar maa ngi koy woo moo ma fayaloon Saal waaw di sant petit bu baax a baax a baax. waaw ginnaaw ma sant yàlla jul si yonante bi di sant sama ñaari waajur xam nga si yonante bi di sant sama ñetti waajur di sant sama papa di nuyu sama papa Mor ak sama papa Boy Kéré di nekk si man si mais Baye jàppale leen ñu ngir yàlla ak yonent bu waay jàppale leen ñu jàpp leen si e mbër ñu concentré wu fii aja waaw di nuyu sama ñetti waajur ah sama papa booy kere li nekk si man lépp moo ko def maa ngi koy bu baax ak sama papa Mor Faram ak sama yaa maa ngi sant waa géej waa di woo ñëpp si combat bi kii moom mu koy wax maa ko daa ko maa ko bu bëree ma daan ko bu xeexee ma duma ko war na Serigne Bamba bisimilahi rahmaani rahim onze bi mina seytaan rajim bisimilah ginnaaw bi ñu santee yàlla julli si yonante bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur bu baax a baax a baax di sant waa Bargny bu baax ndax amuñu seen fay quoi gis nañ ñu taxawa si combat bi xam nga bi mu taxawee ba léegi tooguñu taxawuñu fu nañu fay dugg xam nga ngir ma jàpp pëkasa bii waaw dara yii du dara ñee ñoo ma tax a jóg Grand Combat yee ñoo ma tax a jóg mel du kii ah? waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla maa ngi gërëm sama gaay yi ma àndal ayom si ay papa ay iwu xam waaw di gërëm tamit sama grand bi nii aw waaw mooy loolu noonu di sant waa Kër Mbaye Fall yëpp waa Kër Mbaye Fall maa ngi leen béy waaw mooy loolu noonu di leen wax xam rek lii confirmation la quoi ñu dañoo toog si ay victoire xam mooy loolu tegloo ko teglawaat ko ko kon ñun pour ñun kii xam nga waruñoo jaaxal barki alxuraan ah onze billah bisimilah ina wàll yàlla liggéeyul yi boo ko xool nga xam ne liggéeyut yi maa ko gën a liggéey fuuf yi duma moroomam ndeysaan waaw doo sama morom kay loolu dëgg la ndax yaa ma mag fuuf ndax man tuutàng laa xale bu ndaw laa barki alxuraan mooy loolu man may kii moo mag barkeel kii moo ma mag yow banaane nga man 94 la <laughs> yow <laughs> man 97 laa 97. yaa ko magee 3 ans eh, kii day soob taxul dégg ah. kii Paala barki yàlla Mourou Mbaye billaa wallaahi maa ngi gërëm nag sama doom ndey Ibo yàlla wax yàlla mbay ndam si combat bi njëm affaire kër Mbaye la billaahi ñaari ndam day dem kër Mbaye Fall kii ne ma ko wax bariwul c'est comme daa am taalibeem te man nit boo amee taalibe sa kanam saaku taalibe rek dama bëgg a wax ak yow quoi moom grand frère la moo ko jox ci ru grand frère quoi xam nga. Eh, bari yooyu maguma la yaa mag foofu yooyu waxu mbor la rek. waaw yaa ko magee moo mag waaw maa ngi nuyu bu baax moom laa àndal di nuyu Ngoy di nuyu sama mbokk ñëpp di leen woo waa défense baa leen di bi. di sant yàlla julli sonante sant sama ñaari waajur bu baax di ñaanal sama papa fu mu nekk gënal ko fu mu jóge nii ak ñu mu fekk ak ñu ko fekk waa di nuyu sama adversaire. waaw onze billah naa sant yàlla julli séeréente bi sant sama ñaari waajur di nuyu ñu fekk ñëpp waa paax lambaay ndax man fi laa bokk xam doom paax bi laa di woo ñëpp daal di leen nuyu di leen ziar waa paax bi yëpp moom moom c'est que dafa yaru quoi dama kaa yërëm xam lu ma koy ñaanal ñu xool xam bu dul waa Pikine yàlla na ko yàlla may ndam kii barki Seydina Mouhamed maa ko mën fuuf lu ma def si làmb xaaj bi sax defu ko barki alxuraan loo si làmb man xale bu ndaw laa kii amul sax benn nag man am naa ñaar bay am ñett damay tegle jël poids léger jël poids lourd te kii mënul def xaaj ba barki yonent bi duma moroomam da ngaa tegle laat poids léger ak poids kii daa dof kii daa dof Fass ki fa gën a të Serigne Ndiaye bu Fass mënumaa daan barki Seydina Mouhamed bëri nañ Iba Mar Diop kilo ma kilo ma ngaa xool barki Serigne Saliou Mbacke bu ñu bëree léegi ma daan ko. non waa CNG ngi fi jarul Modou kii dama koy duma ba pare dookaa daan. moo xool ma kii dafa naan ay doom ba. tuddee ñu ko te incha allah waaw dina la taxaw. ginnaaw bañ jullee si yéen tedd bi sant suñu ñaari waaj. wala demee Mbaye xam nga soox. soox kii nii xamul làmb rek laa xam xam nii rek nii rek laa ko xamee. Hmm. waaw mais bàyyiwuma ko sa xel. Hmm. bàyyiwuma xam nga ko moom. saa kii day xaar. ah kii day lu muy xaar. kii dafa baare di wax naa lay xamuma yéen nekk fi di dellu nii waaw lamb ji laa lay xaar. caméra c'est bon ma dem ah Mbaye eh, laa day xaar. gars yi ñooy nekk fi di dellu nii rek wax rek. barke Serigne Touba Mbacke man doomu Géejawaay laa du ma ragal Massam laa dëkk waa jàmm ga ay tapet leen. yow Géejawaay amul sax ku am fi ku fa dëkk mbër dëkku fa ku am fi dëkku fa Géejawaay ay tapet fa dëkk ay dalukat seret jàmm gën fa la lépp amee xale yu ndaw yu toll nii dañuy bëre wala. da ngay moom wala da ngay bëre ak moom dama koy duuma dama koy kii day sóob day caaxaan rek xelam day cokataan kii xelam day cokataan kii du ma danaa teg lu metti barke Serigne Touba Mba ah. saay kaay ah <laughs> waay eh kaay du adversaire waa adversaire dog yi adversaire dog yi quoi. li ngay wax de. nanan pulaar no il faut kala. andanaani pulaar. bon mi salmini bandiraaɓe fof sehilaɓe a gooto kadi mi woppaani quoi. kalko wonɗo fof mi salmini ɗumen quoi eyyi ɗum noon combat lo set so allah jaaɓi joom anniversaire no ara en woni boytin so dogui o dogui ngol ɗo dogata ñan wonde so allah jaaɓi nder guewo mine keddoto mbiri wiiri wiiri jaar jaar bamal pinen ko fek sama bot am fuñ ko visé mooy grand combat fuñ nekk ah. barke Seydina Mame Ousmane Gandiga ci la bokk ci la mu leeral kaay kaay fii maa lay delloo ziar bu baax a baax nam naa la maa bu baax Modou Mbaye baax yow lamba la bëgg barke yàlla lamba soxla la. bara yàlla la yàlla defal jàmm yàgg gaa yëpp. waaw di nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu waa Fass Mbaaw bu baax di sant sama yaay bu baax di ñaanal sama papa yàlla na ko yàlla xaare àjjana. di jaale maire Fass Sène yaayu Maguette Mar yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. tey la huitième jour bi ñu koy ñaanal foofu noonu Fass Mbaaw jabaru père Ibrahima Mbaye entraîneur écurie Fass. waaw sama adversaire ñëwul amuma lu may jàmm rek jour lamb ji mu ñëw quoi dara bañ ko dal ñu xeex bëre ma na ma bëgg sama combat dàq si combat yi nii dama bëgg sama combat gën si neex waaw mais yow laay ñaanal ndam ndax maa yow ñoo bokk benn couleur bu ñuy défendre man du ma daw peloton daw ma di làqatu si ginnaaw kenn da ma may gis ma toog moom di waxtaan xam naa xama nga day daw yow laay ñaanal ndam barki alxuraanu karim nga daan ko jël bu rëy waaw wasalaam daanaka grand combat la ndax ñaari xale yi koy bëree wax naa leen ko seen tolluwaay ñaari xale yi koy bëree fi ñu bokk bu ñu leen nee Forza numéro 2 mooy jug xam ngeen ni kooku Medina gépp ñooy jug ñëw topp si ginnaawam bu leen nee mi ngi bëree ak taqe mi nga xamante ne Balla Gaye junior lañ ko xamee woon kooku bu jugee moom it jàmm a gën gépp jug topp si ginnaawam muy ñaari xale yoo xamante ne ay champion la ñu. yi daal mi taxawal combat bi xaw ma nu mu def ba taxawal ko mais combat la taxawal boo xamante ne nii àddina ñëpp ko bëggoon maa ngi siyaare Aba sama baay faal maa ngi leen di bëggee a baax taxe Forza bismillah pare nga aja mbokk yi kii moom moo fi teewal Sora Sora Ala Ndiaye Fallou moom moo teewal Sora Alla xam naa dañ lay bàyyi nga yëkkati ay kàddu ci turu Sora. waaw ñi fi daje ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp suñu frère Idali ñu ngi ñu ngi production di ziar père Max di ziar ñi fi teew ñëpp. waaw yi Sora Ndiaye moo ñu yóbbante dañu wax ne tey dafa am empêchement moo tax ñëwul mais bëggoon na sax teew waaw drapeau bi nag waaw mafia bi ñëpp Sora Alla Ndiaye wax ne gars yëpp ñu ngi koy waaj di ci woo waa Guédiawaye bi yëpp di ci woo magam xaritam. Aziz Aly Ndiaye di ci woo Baye Ndiaye di ci woo Aziz Aly Ndiaye di ci woo Baye Ndiaye di ci woo Khalil Aly Ndiaye di ci woo Sëñ Mbay di baax yëpp waa ASC mafia bi géej waaye yëpp ñu ngi leen di woo li wax na waa la set moom wax dëgg yàlla sóor mi koy a baax a baax première édition la te yëpp ñu ngi koy waaj parce que sóor suñu xarit la suñu dëkkandoo la suñu nawle la waaw ñoo fowandoo xam nga ànd bañ nekkee boobu ba léegi wax dëgg fa yàlla kon bu tuddee drapeau tuddañ ko waa géej waaye yëpp di wax ne Modou Mbaye lu ci ba a dégg daal mooy sóora moom mi ngi koy pare bu baax a baax a baax di wax ne waa Bawol Bawol ngeen jàppale Idaly ñu ngi ñu production parce ne bay sa wewu tànk te Idaly amul lu waa Lambaye yéen ñu bëgg le set Bawol Bawol waaw jaajëf kontaan nañ ci yow boo demee nga nuyu ñu sóora jaajëf sëñ Fall jërëjëf jaajëf mbokk yi dem ci signature de contrat waaye ndeke xel daal waaw mais papa maa ngi lay siyaare bu baax di la jox sa wàcc waaye di la nuyu numéro un moom it bi mu ñëwee yàgg na Fallou Ndiaye maa ngi koy siyaare bu baax a baax di ko bégee waaye ñu ngi jëm ci signature de contrat wu Takké ak Forza numéro 2 pourquoi Takké. Takké lépp lu bees rek. onze billah bisimilah newal yàlla. yee ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur. Eh, di sant suma sëriñ ma Samba borom ngaa ci faal oh. eh, di sant sëriñ si di arxuraan bu baax baax baax jaajëf maa ngi lay nuyu waa ñu ngi lay fay alaaji Modou mbay di nuyu suñu pap Max Mbargane di nuyu assistant bi di nuyu képp ku fi nekk daal di nuyu ñi ma àndal suma xarit suma doom day Forza Junior ak suma di nuyu ñëpp di nuyu Médina Gueule Tapée Fass Colobane Grand ñaari tali di nuyu ñëpp daal taxe ngay bëreel de waaw grand Moussa taxe xam nañ ko ki mu tuddee boppam xam nañ ko benn ancien grand bu nekk Seras kii dama koo xam. dama koo xam. yow da nga ne woon xamoo ma de kan bi nga bi la affaire yi ñoree gësu nga ma man dama laa gësu ba ñëw toog yow si dernier moment yi nga may door a gësu mais man dama laa gësu ñëw teg lépp xamal ni la combat bi dafa maa ñor yow xam nga loolu bu baax a baax a baax moo tax bi nga jaaxlee gësu nga ma te doo am dara. xam nga paa boo xamante ne dem nga IPRES fayeeku ji ñëwaat si làmb ji man ndaw laa li ma waxoon démb laay waxaat Igri Fass moo ma ñor te dañ ma yónni yàkkamti ma su may mbokk su may bu arbitre ne prix bi li ma daan wax rek laa yore def mooy li papa Tafa gi daan def zattaag sa koñ esa gañ du ma arrièreoon mbër si làmb bu mu duggee si làmb ba léegi mosuma arrière tu du ma arrière gone Médina la loolu waxi mbër la fii ngeen di toog di ñu jox ay calmants si bis ba jotee arbitre su ne ngeen nee di daw ñun nekkatuñ si yooyu ñun ay xale lañ mais ay mag ñoo ñu yab léegi làmb dañ koy teg si yoon lépp lu ñu wax ñu def ko si làmb ji noonu lañ koy doxalee li ngay wax nii tollu la fenn te arbitre su ne prix lépp luy metti si yow lay jugee xam nga ancien simbakat nii lay mel xam nga ku simba ba toog nii ngay mel man du ma simbakat xam nga simbakat moom man moom am habitude sax di wax. gis xale yi nekk ñëw nga wax nga xamante ne loolu may waajal ci nga xamante ne yaa ko fekk nag tey yaa yenn choisi yi ngeen ko tuddee wax ci bis bi ni ngeen koy waajalee nga wax ñu gisee bisu tey bi. bisimilah monsibillah ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonente bi di sant sunu ñaari waajur di ñaanal sama sama waajuru góor woowu ma am yéene teral ko nag suñu borom yëkkati ko daal maa ngi koy ñaan suñu borom di nuyu sama mbokk bawol bawol yëpp di nuy assistance bi ci bi yëpp daal mbëri yeeg ñëpp maa leen nuyu di la nuyu yow Modou Mbaye di nuyu association de seen amateur ñëpp Père Modou moom moo leen fi teewal di nuyu waa ñi ngi production bi yëpp daal di nuyu bawol bawol yi di ñaanal nag sëñ Abdou Karim Mbacké mu yàgg fi lool te wér te xam ko ne màggal gi ñoo ngi waaj ñi ngi ñëw di wax na ñëpp daal kenn ku nekk ku bëgg a màggal daal ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal la jàmm nga am dem ci jàmm ñëw ci jàmm di ñaanal kilifa mbokki mbër yëpp waaw di gërëm journaliste yi di la gërëm Modou Mbaye waaw di gërëm sama adversaire Paul maa ngi koy siyaare bu baax njool na de waaw noonu loolu daf siy baax sax njool bi ah, waaw moo la arrangé bu ko mënee bu ko defee mu mën a dugg si biir quoi ah. waaw saay gàtt na de gaan auzu billahi mina seytaani rajim waaw balaa ma def dara maa ngi sant yàlla julli ci yonente bi di gërëm sama ñaari di nuyu mbooloo mi teew ci salle bi yëpp sama mbokk mbër yi di nuyu ménage ménagère yi fi teew di nuyu promoteur bi xam nga promoteur la sunu morom la waaw di ko ñaanal mu am réussite ci làmb ji bu baax waaw loolu waaw sa ay gàtt na loolu amul problème sunu écrit façon bu dem bu dem fa loolu moom jaaxalu ma waaw gàttaay bi su jaaxalu la non man façon bu ne bëri na moom loolu du problème moom nee li nga njooloo ko arrangé ndax mu mun a curux carax jur jibul boobu booba Ousmane xam nga Kool. waa Kool xam naa ko bu baax a baax macha allah waaw xam naa ko yàgg nañuy daje si Mbabat. Mhm. mais xam naa peut-être fàtte na loolu. mais loolu après la weesu na quoi. Mhm. waaw li jot ngeen bëri Mbabat yee ñaar. no loolu weesu na lu ne suñu kanam la ñuy xool daal. fàttali fàttaliku nga seen Mbabat. non mosu ñoo bëre mosu ñoo bëre. non non mosuñoo bëri mbapat ànd ànd naa ak yaroo baax bu bëreeg yaroo baax yaroo bu bëri bu métti gannaaw yaroo baax yaakaar naa yaroo baax moo amoon ndam ci waaw mais maag moom mosuñoo laal sa combat moom lu mu laaj xeex wala lan la non moom lépp lu combat bi laaj rek naa ko def waaw bëre xeex lépp laañ préparé ñooy bëri day xeex ñu demee ja lu ñu gis rek loolu lañu appliqué làmb yi lu mu laaj xeex wala lan pour am ndam Modou waaw dañu ne bëre dóor xam nga bëre dóor moom dafa làmbo lu bari hmm. bëree am na dóor am na waaw ku ma xam nag xam ne Ousmane Gandigal day bëri day xeex ñaar yëpp dama koy def polyvalent la kon donc làmb ji moom lu mu laajee jour ba bu laajee ñu xeex jour ba dañuy xeex bu laajee dañuy bëree bu jour ba ñu bëree. Hmm? waaw incha ñëwee fekk fa xeex bu rëy nga xeex ak moom. ñu xeex rek xeex ba génn télé waaw waaw.